asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi nekk fii ci Italie yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi comme niñ leen ko euh, waxee woon ci bés bi euh, depuis démb mu nekkoon suñ première émission tey nekk euh, deuxième émission bi xanaa rek ñu ñëw wax leen mbirum coronavirus bi nga xam ne moo dugg ci réew mi ñu nekk ba noppi dugg ca suñ réew ba noppi tas ci àddina bi moom la li ñëw di leen euh, wax xibaar yi nga xam ne ñoo ci gën a am njëriñ mbokk yi xanaa rek di wax ne comme nu ngeen ko xamee protection civile euh, fii ci Italie chaque jour à partir de six heures euh, dañuy joxe information ci feebar bi ni muy lawee ci dëkk bi ñu wax ne wax dëgg yàlla ñoom tey nee nañ feebar bi bi mu commencé ba léegi li ko yore ci nit mu ngi toll ci vingt quatre mille sept cent quarante sept personnes mooy cas yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo am ci euh, coronavirus bi xanaa rek di wax ne euh, euh, wax dëgg yàlla. Euh, feebar bi mu ngi yokk wàññeekuwul waaye nag ñu wax ne bi mu amee ba léegi ñi nga xam ne ñoo ko yoroon wér toll na ci deux mille trois cent trente cinq personnes euh, ñi ci gaañu nag euh, bi mu commencé ba léegi nga xam ne feebar bi ca lañ génnee àddina mu ngi toll ci mille huit cent neuf personnes xanaa rek wax dëgg yàlla mbokk yi di wax ne lii mooy chiffre yi nga xam ne moom la protection civile euh, di joxe di fàttali rek ne protection civile ñoom la gouvernement Italie jox pour que lépp ci mbiru taxawaay ñu mën euh, ci mbirum feebar bi ñu mën di ko def te ki nga xam ne mooy njiit li tudd li moom chaque ngoon dina ñëw joxe information protection civile nag su ci liggéey mu ngi ciy liggéey ànd ceeg euh, yeneen région yi waa mbokk yi ñu dellusiwaat donc xanaa fii ci Lombardie di wax ne Lombardie mooy région bi nga xam ne moo ëpp feebar fii ci Italie euh, lombardi bi ci boppam dañuy wax ne wax dëgg yàlla su dee vingt quatre mille sept cent quarante sept personnes ñoo ko yore fii ci Lombardie euh, dix mille zéro quarante trois personnes ñoo ko yore xanaa nag muy mel ni rek. Euh, presque lu jeg lu suriwul soriwul dara moitié bi ñu ko yore ci Italie yëpp li ci ëpp ñu ngi nekk fii ci Lombardie ci biir Lombardie nag euh, ki nga xam ne mooy Galera nekk assesseur bi nga xam ne moo yore mbirum santé ci région Lombardie moom nee na euh, ci biir Lombardie province bi nga xam ne moom la feebar bi gën a bëri mooy province de Brescia suñ jógee ci province de Brescia mu ngi ciy topp province de Bergamo su ci province de Bergamo jóge province de Milan moo ci topp ñoom euh, comme ni ma ko waxee woon démb gouverneur ki nga xam ne mooy président région bi te fii ñu koy wax governatore moom tànn na benn nit boo xam ne ku am xam-xam ci mbirum taxaw ci mbirum feebar yi nii ci mbirum urgence yi émergence yi kooku ñu koy euh, itam te ñu waxoon ko fi démb muy monsieur Bertolaso monsieur Bertolaso moom mu ngi euh, waxtaan ak gouverneur bi ndaxte ñu ngi bëgg a defar hôpital bu mag fii ci Milan. Milan euh, ceeba Fiera de Milan mu Fiera de Milan bi ñu ngi koy transformé def ko ab hôpital moom gouverneur bi nee na ñàkkul ne fii ak euh, ay euh, juróom-ñetti fan hôpital boobu dina pare parce que ñëpp ñu xam ne wax dëgg yàlla hôpitaux yi nekk Milan ak région Lombardie dañoo commencé fees surtout nag soo jëlee yu mel ni Brescia wala Bergamo seen hôpitaux yi dañoo commencé fees moom waa région Lombardie sax ñoom ñu ngi doon oo démb Euh, ci internet ne képp koo xam ne docteur nga wala infirmière na nga mën a ñëw am nañu liggéey bu ñu leen ñu ngi laaj ñoom pour recruter ay infirmier ak ay médecin kon nag képp koo xam ne wax dëgg yàlla Euh, am nga euh, diplôme liggéey infirmière su la mën nga dugg ci euh, région lombarde nga yónnee sa curriculum vc curriculum vitae waaw curriculum boobu nag ñu ngi wax ne képp koo xam ne da nga bëgg a présenté wu mën nga ko yónni ci email bi tudd perla lombardia arobase regione punto lombardia punto iti lii mooy adresse email bi defoon naa ko ci suma Facebook pour képp koo xam ne rek xam ngeen ab infirmier bu am euh, këyit yi yiñ laaj mu yónnee CVM ci ba nee nañ sax biñ ko lancé démb ba léegi plus de six cent cinquante personnes des yónnee nañ seen demande te ñoom liñ ci soxna ëpp na ay mille donc lii mooy li nga xam ne mooy euh, am ci euh, Lombardie waa mbokk yi donc xanaa rek ñu dem ci euh, li ci xibaar yi li ci des di ko wax ne wax dëgg yàlla communauté sénégalaise bi nekk fii ci Italie gis nañ ñu ngi taxaw seen taxawaay euh, Euh, di dajale xaalis di ko dimbale waa réew mi euh, associé ay nit yu nekk foofu ca euh, Veneto ca dëkk ba ñuy wax Conegliano ñoom dajale nañ lu toll 600 euros yónnee ko région bu Veneto suñ xarit ba fa nekk nag ñu ñu koy wax Cheikh Dieng moom nee na wax dëgg yàlla ay nit rek ñoo dajaloo noonu parce que on nañ association yi loolu mu ngi ko wax ci Facebook bi on nañ association yi waaye association yi répondre guñ xanaa rek ñuy wax mbokk yi wax dëgg yàlla képp koo xam ne yaa ngi nekk ci dëkk bi euh, lu mel ni su amee wax dëgg yàlla loo métti métti ci seen boor foo naa ne ab 5 euros ab 10 euros kenn bañu ko jàppale ci pour que réew mi ñu wane ni ci lañ bokk te réew mi lañ bokk kon nag te bëgg nañ réew mi comme niñ fi bokkee kon nag wax dëgg yàlla loolu ndigal lay doon suma xalaati bopp la ñuy ñaan association yi ñu taxawu ci euh, yëgoon nañ ne nag wax dëgg yàlla fii ci Lombardie am na benn groupe bu monté woon euh, boo xam ne ki ñuy wax Adama am dëkk ca Bergamo moom moo ko taxawaloon pour le moment nag mu ngi ko taxawaloon ci WhatsApp mu nekk dajale bëgg a dajale président association yi nga xam ne ñoo nekk ci Lombardie ñu xool ci euh, feebar gi ñu def nan lañ ci mën a def xanaa rek euh, am na suñ beneen xarit mu wax ne war nañ xalaat mag yi nekk ci biir communauté bi ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom euh, saa yu ñu xëyee dañuy uti li ñuy dundee te ñooñu wax dëgg yàlla période bi ay fan a ngi nii ñu ngi génnuñ seen kër kon nag doon na rafet ñu dem a xam ñooñu ci lu nekk ak xool nuñ leen di mën jàppale. <laughs> waaw mbokk yi donc ñu continuer ci information yi di leen wax ne euh, euh, ca France. président Macron euh, feebar tamit mu ngi fay yokk moom président Macron jël na décision non seulement ci altine bi tëj école yëpp waaye aussi bar yeeg restaurant yi wax na ñu commencé tëj waaw euh, Allemagne ci Allemagne tamit wax dëgg yàlla loolu tamit am na fa euh, nit ñi ñu ngay liggéeyi waaye nag commencé nañ lépp loo xam ne rek ci mu ngi nekk ci mbirum ci mbirum baar yeeg ndajaloo ñu ngi koy commencé wàññi parce que lu mo lu toll ci six mille am na fa mbokk yi suñ demee ba ci ñu réew muy Sénégal euh, euh, président Macky Sall moom it jël na décision yi nee na euh, avion dootul jóge France jóge wala jóge Espagne wala jóge Italie yooyu yëpp tamit aay nañ ko di wax di fàttali rek ne mbokk yi fële ci Espagne tamit feebar ba wax dëgg yàlla suñ paas ci Europe suñ jógee ci Italie Espagne mooy réew mi nga xam ne feebar ba foofu la gën a toll waaw mbokk yi donc. waaw mbokk yi xanaa rek ñu dellu si encore fii ci itali di wax ne euh, président Giuseppe Conte moom mi nga xam ne moo jiite nguur gi moom euh, def na tey euh, conseil de ministres bañ defee conseil des ministres ci mbirum ci mbirum feebar bi jël nañ benn tu tuddee ko décret decreto cura Italia maanaam décret buy faj ca Italie xam ngeen ca bés yële nee na woon dina jël vingt cinq milliards euh, de franc euh, de de waaw loolu nekk presque ëpp na seize mille milliards de francs CFA muy xaalis bu bëri mu jagleel ko pour dimbale ko entreprise yi ak euh, liggéeykat yi ak famille yi. waaye nag tey bi mu génnee ci conférence bi nee na li nga xam ne moom dinañ ko mobiliser dina toll ci trois cent cinquante milliards d'euros pour mën a euh, jàppale koom-koom réew mi évidemment vingt cinq millions vingt cinq milliards yu njëkk pour famille yi la ak euh, ak liggéeykat yi waaye trois cent trois cent cinquante milliards yi wax dëgg yàlla c'est pour mën a jàppale réew mi fépp foo xam ne rek dafa war taxaw te loolu am nañ ci ndo ndigal ak Union européenne di wax ne rek ñu ngi prévoir ne aussi euh, loolu muy contribute IMSI yi nee nañ ministre bi nga xam ne mooy yore mbirum liggéey nee na suspendre nañ ko maanaam képp koo xam ne yaa ngi waroon fay sa contribute IMSI wax dëgg yàlla may nañ la ba ci kanam nga xaarandi ba ci kanam ba yeneen euh, ordre génn pour ñu mën koo fay am na sax kenn ku ma ci ooyoon tey di ma laaj ne dafa waroon contre contributum xanaa rek su fekkee ne ñu ngi muy déglu ñu xam ne contribut yi donc fi mu nekk nii pour fay ko ah aj nañ ko waaw loolu mooy euh, li li nga xam ne moo génn mbokk yi ci euh, conseil des ministres bi xam naa nag ñu ci bëri ñu ngi commencé laajte question yi pour xool ndimbal yeeg yooyu nan lay amee xam naa ne dañuy xaar ba nga xam ne mbir mi xaw na calme pour gouvernement bi génn modalité yi parce que bëgg nañ sax famille yi nga xam ne dañoo yore doom ñu jox leen bonus 600 euros loolu pour dimbale euh, nu ñuy jàppee seen doom ndaxte suñu waree liggéeyee xale yi nu ñuy def loolu mbokk yi mooy li nga xam ne moo moo génn fii ci Italie léegi nag modalité yooyu yëpp jarul poser question parce que fi mu nekk nii kenn mënuñ ci toppatoo dara xanaa dañuy xaar rek ba mbir mi euh, euh, jeex mbokk yi xanaa ñu taxal lu tuuti ñëw.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 waa mbokk yi donc lii mooy sigle bi di leen fàttali ne mën ngeen euh, télécharger application bi ci Google Play yéen yi nga xam ne yéen am euh, téléphone Android euh, ñuy jeexal ak mbokk yi di leen yëgal ne am na waxtaan boo xam ne dinañ ko def ci Facebook ànd ceeg waa Diaspora Vision su ngeen demee ci suma Facebook dinaa ko ci partager mais aussi su ngeen demee ci Facebook bu Diaspora Vision da ngeen ko gis mbokk yi seen xarit Baye Diouf depuis Milan fii ci journal Parler rajo defaral suñu bopp ci mbirum coronavirus bi nga xam am na mu nga fii ci itali jërëjëf ñu ngi leen di jox euh, ndaje euh, rendez-vous ba suba ak jàmm jërëjëf.